Që bu gjën ditë, o okay, gogë së së को मुसे दोतो que chaque repas soit de plaisir, l'Oboumam Diarra Bousso est au cœur des foyers sénégalais depuis de 20 ans. Situé au kilomètre 18 route de Rufisque à Dakar, l'Oboumam Diarra Bousso est une société 100% sénégalaise la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de collaborateurs, guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de l'Obogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Nous avons conçu cette bouteille en respectant les normes de sécurité en la matière. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de quatre sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Obomam Diarra Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable. Et parce que la sécurité est primordiale pour nous, nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également des riverains. Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobo Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà faisant ainsi de Lobou Mame un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Lobou Mame ne cesse d'innover, de voir plus loin. Le Dara Ali Imran, sous la directive de Oustaz Alioune Sall, organise sa 17e édition de Dara Vacances, suivie de la deuxième édition de la colonie de vacances qui se tiendra cette année à Toubab Dialaw pour les enfants de 6 à 12 ans, garçons et filles à partir du juillet au septembre Avec un encadrement de qualité composé de professionnels aguerris, la colonie se fixe comme objectif d'améliorer les compétences sociales, la confiance en soi, l'esprit communautaire, l'automotivation, la sensibilisation l'éducation culturelle, mais surtout améliorer le niveau des enfants pour l'éducation islamique. Nous croyons que ces compétences sont essentielles pour nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens du monde impliqués, chacun équipé d'outils et de valeurs pour apporter une contribution profonde et durable à la société. Pour plus d'infos, contactez le 77 438 49 94 77 586 6 77 ou le 77 531 09 9 28. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلا yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yaay ci mbirum àdduna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 mbokk yi ñu ngi dellu ci suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee falsafatu du'a mooy la philosophie de l'invocation dañoo changer euh, turu émission bi li ko waral mooy ndeysaan am na kilifa ju baax joo xam ne daf ñu topp ci émission bi ak yeneen émission euh, muy koo xam ni ku baax la Euh, vraiment mu nekk mag aussi waaw mooy papa papa pa pa Diop <laughs> waaw El euh, Assane Diop nekk journaliste en même temps aussi waaw nekk journaliste en même temps aussi saan ku am taxawaay la ci diine waaw boo ko fekkee ci ëttum diine da ngay yaakaar moom loolu rek la xam waaye boo demee ci beneen wàll tamit da ngay ne kii lii rek la xam waaw dégg tubaab bu baax sax ndeysaan donc keroog mu ma bind message mu ne ma nii la philosophie de la prière mu ne euh, philosophie euh, de l'invocation mooy gën a jege comme wàllu ñaan la invocation moom mooy gën a jege que prière ndax prière ci wàllu julli la gën a jege après ma ne ko loolu kay amul benn problème dinañu sàkku ci euh, techniciens yi ñu soppi tur bi kon moo tax ñu soppi traduction bi en français def la philosophie de l'invocation et les, la philosophie de la prière ñu ngi noonu kon waaye ci wàllu arab bi moom la falsafatu dua loolu la parce que ad dua mooy invocation ci français a solaat nag mooy la prière kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaay boobu mbokk yi nii rek la émission yi ñoo ko bokk te du moom kese ah. bari na ñu bari ñoo xam ne noonu la ñuy topp émission yi moo xam ci at tadabbur la moo xam ci yeneen émission la moo xam yi sëñ si la di def la moo xam yi oustaz di def wala keneen bu ñu gisee loo xam ne war nañ ko mën a rectifier wala def li gën wala waxee ko ni mu gën a baaxee rek ñu kii ko parce que kenn matul lii kese loolu mu bunt boobu ubbil nañ ko ñëpp macha allah ndax dafay tax ñu gën a avancé loolu lay wane ne mbokk yi ñu ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax kon mbokk yi ñu delluwaat ci suñu euh, waxtaan ci wàllu ñaan mooy addu'a philosophie bi ñu war a am ci du'a euh, tey ñi bëgg a wax nag ci lu am solo kii ñaan kii ñaan mooy kan wax nañ ko keroog kii ñaan tamit lii tax yàlla nangu ñaanam am na yuñ ci indi dont ko bari na sabab yi tax ñaan di nangu ak sabab yi tax duñu nangu ñaan yooyu comme euh, émission bi dañ ko def émission boo xam ne ci beneen contexte lañ koy jàngatee moo tax euh, dama si profito waxaale leen la ñu waxoon keroog ne ñi ngi ñaan maanaa sëriñ see ngi ñaan ak imaam ak gisuñu dara loolu waxin la kenn ku ne si ñun nag saa su ne nga ñaan nga jékki-jékki nga ne ah yàlla nangu na sama ñaan waaye bu ñu ko waxee ne philosophie laa wax maanaa dafa am beneen jàngat bu ñu ko bëgg a jàngatee looloo ko waral kon moo tax wàll boobu. xëy na ñii mun nañu comprendre ñenn ñi mun nañ ba comprendre fi ñuy waxee waaye dañuy jéem rek xëy na dinañu xam ban côté lañ jëm wala bi ñu kilo ñotee gauche lu tax ñu clignotee gauche bu ñu clignotee droite tam lu tax wala <laughs> émission bi euh, émission bi spéciale la ci côté boobule le euh, kii ñaan moom ban confiance la am ci boppam gis nga la philosophie de l'invocation yow mii ñaan bu fekkente ni wóoluwoo sa bopp wóoluwoo sa bopp gëmoo sa bopp sa ñaan du nangu sa ñaan du nangu du dem fenn bu fekkee gëmoo sa bopp wóoluwoo sa bopp sa ñaan du dem fenn daa mel ni tey nga jóg di dem defi combat wala nga jóg di régler benn problème wala nekk ci benn projet projet bi wóoluwoo sa bopp ne yow am nga capacité yi tax wala talent bi tax nga mën koo taxaw am am nga am am nga maanaam kàttan xam-xam bi tax loolu mën a réaliser wu wala nga jàpp ne yow boo tàmbalee projet bi rek boo demee ba ci yàgg rek dañ lay yàqal wala penc mi ni muy doxee doo doo réussir doo am succès jarul ngay def toogal kon yow si jëmi bopp boo gëmulee sa bopp ci li ngay ñaan sa borom sa ñaan du dem fenn waaw kon la philosophie de l'invocation loolu tam ñu bàyyi ko xel dañ ci bàyyiloo xel mbokk loolu yow miy ñaan parce que ñun suba ba gént soo dañuy ñaan suñu diine bi noonu la yàlla dafa ñoo sant ñaan te ñaan daanaka mooy diine ci julli mooy ponk bi nga xam ne daf ñuy topp bi ñu bi ñu ràññee ba keroog ñuy tàggoog suñuy ruux te julli lépp ñaan la daanaka lépp ñaan la waaw loo yëkkati lu ne ne balaa ngaa pare rek ñaan nga siy teg waaw boo xëyee yaa ngi ñaan def say invocation yoo xam pour say musluwaay waaw boo jullee ba pare la même chose bu ngoonee nga ñaan booy tëdd nga ñaan nga xam ne lépp booy dugg sa kër am na ñaan booy wax booy génn am na ñaan booy wax booy sol yére am na ñaan booy wax booy lekk booy naan booy dugg lépp looy def daal am na ñaan booy wax ko ñun suñu lépp prière la suñu lépp invocation la waaw kon yow mii nga xam ni yow yaay ñaan il faut nga gëm sa bopp d'abord il faut nga am confiance sa bopp d'abord ne li ngay ñaan dafay nekk beneen bi nag beneen philosophie bi nag li yenent bi wax na ko beneen bi moom mooy suñu borom subhaanahu wa wax na ko ci alquraanul karim wax ko ci xadis alqudsi waaw mooy man man maa ngi nekk fi ma sama jaam foog rek fi ma foog rek falaa nekk man man yàlla ana inda dhanni abdi gis nga foo teg maanaa yow yaa ngi ñaan nga ne ah hmm, li may ñaan ni de suñu borom de du ko nangu dëgg du ko nangu parce que loolu nga def sa xel li ne sa xel mooy su ma ñaanee yàlla du nangu sama ñaan xëy na li tax nga jàpp ne yàlla du nangu sa ñaan am na noo men moo tax am na baakaar boo def wala am na baakaar yooyu def wala am na noo men ci sa doxalin moo tax nga jàppee ne sa borom wala borom bi subhaanahu wa taala yow li nga men ci loolu la lay jugé ci loolu la lay àtte ñaan bi bul sonal sa bopp du dem fenn ñaan bi yàlla du ko nangu. suñu borom subhaanahu wa nee na damay nangu ñaan ji nag fekk yow xooloo ci sa matadi xooloo ci sa manqué-manqué xooloo yow li nga men mais da nga da jël mbir ma jox ma ko man yàlla ci sama yërmande sama màggaay sama mbaax boobaa nag man loo ma ñaan ma nangu ko waaw fa ma dannukum bi rabbil alamin ane ban ban ban ban njort ngeen am ci ki nga xam ne moom mooy borom mbindeef ban njort yow yaa ngi ñaan ki ngay ñaan mooy ci bind asamaan ak suuf ci bind lépp ci yore lépp ci moom lépp ah yow loo foo ko teg su ma ko ñaanee non du ma may du la may waaye nga jàpp ne ak nu mën a mel moom suñu borom moom ci mbaaxam moom su ma ko ñaanee mu mu mu nangu sama ñaan mu may ma loolu paa rëy la dafa am. benn wéyjur boo xam ne doomam dafa feebaroon bi mu feebaree nag feebar ba toll ci étape boo xam ne gis na ni yëg na ni doom ji du ci génn maanaam doom ji dafay des ci feebar bi yaay ji nag wéyjur bu jigéen bi ak yaay ndeysaan ñu ñëpp xam nañ diggante yaay ak doom mu toom mu tiim doom ba ndeysaan di jooy jooyu xol jooyu cofeel jooy metti loolu loolu loolu yombul ku kenn ku ne suñun boo sañoon say doom ñoo lay suul waaye kenn ñaanul yàlla suul ay ay doomam loolu yaakaar naa ñun ñëpp loolu lañu bëgg ñu dund ba màgget ba dem ba jeexal suñuy doom suul ñu waaye ngay dund di dem say doom di màgg yow ngay màgget ba pare ngay suul say doom kenn ñaanu ko yàlla yaay ji baax yaay ju baax ji mère ju baax ji jur bu baax bi looloo ko dal mooy dund na ba nekk mag doomam tamit dem na ba commencé dox yore àddina yor ko doom ji feebar toll ci dee daanaka feebar bu métti ba muy sukkuraat na yaay ji di jooy di jooy jooy métti xale bi ngir dalal xelu yaay ji ndeysaan mu wax wax bu am solo loo xam ne dafay renforcer liñ doon wax léegi mu ne yaay mu ne ko naam doom mu ne ko dama lee laaj benn laaj mu ne ko loo may laaj mu ne ko tey jii ni su ma defoon jéey wala ma nekk ci benn euh, pro procédure àtte ñu war maa àtte ñu yóbbu ma tribunal ba sama dossier ñëwee ba tegu yow nga nekk juge boo xam ne yow yaa moom war a àtte yow yow yow sama yaay waaw nan ngay def man danga may yërëm wala nooy def mu ne ko man boobaa kay nga xam ne maay sa yaay nga xam ne dinaa la jàppale dinaa la yërëm waaw dinaa fexe ba nga génn si situation mu ne ah, ah mu ne ko ah kon nag na sa xel dal fompal say ronkoñ nga bañ a jooyati ndax ci ki ma jëm muy yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo la ëpp yërmande ci man mu ne ci ki ma jëm. moo la ëpp yërmande ci ci man muy yàlla subhaanahu wa gis nga kooku confiance ak njort bu rafet bi mu am ci borom subhaanahu wa taala jàpp ne yàlla moom da koy jéggal da koy yërëm ko toppee dara kon ki jàpp ne yàlla da koy yërëm da koy jéggal du ko toppee ci dara loolu la ko yàlla di defal loolu ah, loolu mooy fa maa zannukum bi rabbil alamin ana inda zanni abdi waaw yenent bi ne udu llaha wa antum muuqinuuna bil ijaaba waaw yenent bi ne ñaan yàlla da ngeen ñaan yàlla te fekk yéen bi ngeen di ñaan yàlla da ngeen am kóolute am certitude am yaqiin ne yàlla dafay nangu ñaan ji dafay accepter ñaan bi <laughs> gis nga fa inna allaha laa yaqbalu min daawatin boo xam ne maanaam yàlla du nangu ñaan boo xam ne min xaafilin laahin min qalbin xaafil moo ngoog koo xam ne mi ngi ñaan yàlla waaye amul confiance wala mi ngi ñaan yàlla xol ma xel ma connecté wuñu sax nekku fi si na alhamdulillahi rabbil allahuma inni auzu bika min alhammi walxasan wala fekk moom mi ngi wax nii rek waaye teewluwul ñaan bi amul yëg-yëg bi nga xam ne moom la waroon a am digganteem ak boroomam kon mbokk yi la philosophie de de de l'invocation loolu lañ leen indil tey ci wàll boobu mooy kii ñaan dafa war a gëm boppam gëm ne moom la muy ñaan dina ko am waaye nag gëm ne boromam bi muy ñaan aussi tamit du delloo ñaanam maanaam da koy nangu day nangu ñaanam waaw day am confiance ci boromam day am yaakaar bu mat cent pour cent laa la wax nekkul sax ñu ne da nga war a am di soixante dix pour cent quatre vingt pour cent quatre vingt dix pour cent non cent pour cent yàlla da koy nangu yàlla bu ko defee da fay nangu ci kàttanam kon mbokk yi ñi ngi leen di dénk di dénk suñu bopp benn ñaan tey boo xam ne moom lañ bëgg indi waaw ñaan boo xam ne jafewul compliqué wul waaw ñaan boo xam ne jafewul compliqué wul waaye nag dañ koy topp suñ ko indee nii tey xëy nañu topp ko ci ay émission yu baree bari bu si njëkk mooy allahumma inni audu bika min alhammi walxazan waaw allahumma inni audu bika min alhammi walxazan wa min alajzi walkasal wa min aljubni walbuxl wa audu bika min galabati dayni wa qahri rijaal ñaan bi mooy ñaan bi nga xam ne bàyyiwul dara ku koy ñaan sa léppay baax léegi nag dinañ ñëw indi nag détails yi incha allahu waaye ñaan bi képp koo xam ne mokkaloo ko woon munoo ko woon na nga fexe jàng ko boo ko dégloo nga bind ko sax di ko topp di di arrêté émission bi di ko topp di ko bind ba mu jeex nga fexe mokkal ko am na solo bu ñëwee ci explication bi ak ci développement bi incha allah dinañ gis ñaan bi nu mu amee solo ak dimension bi mu am di ñaan borom subhaanahu wa taala mu ñu dégg ak topp yal nañu borom subhaanahu nangul nangul leen. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci bu jën bi toggee gog sa soja resto rosi bi def si so Esto, so como se do toco bai. Pour que chaque repas soit un moment de plaisir, l'Oboumam Diara est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans. Située au kilomètre 18 route de Rufisque à Dakar, l'Obou Mame Diarra Bousso est une société 100% sénégalaise spécialisée dans l'enfûtage et la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de collaborateurs guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de l'Obogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance, faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Nous avons conçu cette bouteille en respectant les normes de sécurité en la matière. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de quatre sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Obo Mamdiaro Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de 9000 bouteilles par heure, ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable et parce que la sécurité est primordiale nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également des riverains. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers et avons lancé en notre la marque avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà de nos frontières, faisant ainsi de l'Obomam Bousso un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Lobou Mame Diarra Bousso ne cesse d'innover, de voir plus loin. Le Dara Ali Imran, sous la directive de Oustaz Alioune Sall, organise sa 17e édition de Dara Vacances, suivie de la deuxième édition de la colonie de vacances qui se tiendra cette année à Toubab Dialaw pour les enfants de 6 à 12 ans, garçons et filles à partir du 15 juillet au septembre Avec un encadrement de qualité composé de professionnels aguerris, la colonie se fixe comme objectif d'améliorer les compétences sociales, la confiance en soi, l'esprit communautaire, l'automotivation, la sensibilisation l'éducation culturelle, mais aussi et surtout améliorer le niveau des enfants pour l'éducation islamique. Nous croyons que ces compétences sont essentielles pour nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens du monde impliqués, chacun équipé d'outils et de valeurs pour apporter une contribution profonde et durable à la société. Pour plus d'infos, contactez le 77 438 49 94 77 586 6 77 ou le 77 531 09. 9 28 الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلا yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna